boo toogee di waxtaan ak moom macha allah da ngay gis idée bi ni muy ni muy développé muy indi xam-xam yoo xamante ne macha allah euh, ay xam-xamu làmb lañ jëf nag mënuñu waxtaan ba ba fi ñuy tàggoo ci tàggoo bu dul tàqalikoo euh, te duñu waxtaan ci combat yi nga xamante ni jot naa taxaw ma xool ba xam jëf jël euh, xam-xamu làmb ji fu mu nekk ba léegi wala reen ku mel ni guy gi rëg-rëg ban gis-gis nga ci am waa xam nga guy gi rëg-rëg moom si man sama côté ku du tiit si wax dëgg dafa neex analise combat boobu noonu bopp la ak doole tey bu fekkente ni wàllu làmb bopp rëg-rëg du si moroomu guy gi kon si wàllu man bëre rëg-rëg laa jox hundred pour si wàllu doole damay ñëw indi cinquante cinquante lu tax may indi cinquante cinquante guy gi ëpp doole Reug Reug waaye ëpp ko doole Reug Reug moo ko gën a doon xale moo ko gën a tegoo lu metti ba tax na combat boobu su ma doon joxe sama xalaat favori Reug Reug laa koy jox uh-huh. euh, Siteu Papa Sow oh, waaw Siteu Papa Sow Siteu suma gaañ la sama xarit la dañuy waxtaan saa su ne Papa sama doomu ndey la mm. amuñu benn contact bu bari bi mais avant may tukki amoon nañ benn lien bi Siteu hmm. avant may tukki amoon nañ benn lien mais bi ma tukkee lañ gën di waxtaan hmm. mais dama lay wax ni la Papa Sow mbër mu ko ñemee bu nekk hmm. dañoo tëjagut géew bi Papa Sow ak Modou Anta ñoo amuñu lu ñuy ragal seen àdduna surprise bu ne mën nañ la ko indil si làmb mais nag Siteu xale la te daa nekk si yoonam ku naxaree téye la parce que yow xam nga bu mbër mu public dar ak mbër mu public daru duñ benn. Mhm. yeah. Euh, Boy Niang Tapha Tine. amiin combat boobu moom man munu ma see wax dara quoi parce que xam nga lu tax munu ma see wax dara ñaari qualité yi boo xoolee ñoom ñoo yem quoi. Mhm. yeah ñaari qualité ñoom ñaar seen ñaari qualité mhm. ñoom ñoo yem si si biir combat bi la ñuy soog a xalaat nu ñuy réfléchir pour daan. musuma gis booy ñaa ñëw taxawal combat bii nii yow nii laa lay daanee day nekk di kalkin di kalkin di kalkin ba yàlla jox ko benn tës mu daan tafaatin semtin tafaatin ku ko daan xam nga ni waru koo daan da du indi lu tegu ci stade bi ba tax na fi muy jéem a réfléchir kële xëy na am na lu mu ko ëppalee ba daan ko Garga Sa Thiès ok Garga sama doomu ndey la mën naa lax ni la ñoo fowandoo làmb mais moo moo saakees dañoo da saakees dafa am lu mu ko rawee lu bari si làmb làmb dafa am jàppale làmb dafa am ay taxaw làmb dafa am ay keno parcelle nga dëkk parcelle laa dëkk ana keno Garga Mbossé kenn la amoon ku ko waroon a jàppale muy magam hmm. bëre man boog ànd naa si ak Garga ba làmb nara bàyyi ma nii hmm. te musuma gis mu ñëw combat Garga Garga ku ko daan mënoo ko manque encadrement moo tax nga daan ko Fallaye Balde bi muy daan garga garga bu tëddee di nelaw Fallaye waru ko yee mm-hmm. Sa Thiès xel ma daa dal doomi mbër la di rakki mbër mm-hmm. jàppale ba daa bari kon da nga bëgg jàppale du benn yàlla yàlli la la yàlla mën a def yàlli mënu koo def la la yàlla mën a def yàlli mënu koo def kon de combat bi moom daanaka wax ji moom féete na góos. yàlla ak yaali la. Oh. xanaa déggoo leen <laughs> wala. <laughs> combat Garga Mbossé Sa yàlla ak yaali la la yàlla mën a def yaali mënu koo def waaw. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. Ah? ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Balla Giri merci Balla Giri. ok <laughs> tey nag consultant bu mag consultant laa nga jëf jël. ok. xam nga Balla giri Gris Bordeaux hmm. si combat bu njëkk ba laa leen ko waxee woon Balla Gaye bi ma ko gisee mu taxaw saal hmm. laa ni leen Balla indi na beneen façade boo xamante si nii hmm. Gris Bordeaux bu deful lecture si Balla Gaye munu koo daan gis nga keroog Balla bi mu dégagé dem songu Gris fi ma nekkoon ñun amuñu ay miir ay suturaak la ñu am bi ma dóoree sama loxo dafa xëtt pour pour man Gris jaaxaan na la Balla bu yàgg mais moom la Balla gay nekkoon di wone avant signature moom la indi stade ba yaakaar ni Balla bu nee ko haa daan na ko xanaa xamoo ni Gris Bordeaux bu faale wutoon dara lu Balla gay indi premier sud bi Balla gay dawee dagaase ba bi ba Gris añ ko mm-hmm. si la koy daanee yàgg na. première song ba. première song. jàpp ba daa baax si jàpp ba dafa baax mm-hmm. léppi Balla gay la mm-hmm. mais boobu du Gris mooy bëre. Gris yaakaaroon na ni Balla Gaye daan na ko démb dóor na ko démb mu daanu. combat boobu mooy ñëwaat tey. kiri ba illaa yomil bë si du daan Balla Gaye <laughs> jël sama gaañ la nag Gris Bordeaux ah. Balla suma gaañ la Gris sama gaañ la amu benn mbër man bu ma amal xaar ma yàlla kenn moom ma mais dama lay wax damay wax si sama xalaat mm. surprise nag day am mm. làmb moom ak surprise ñoo ànd mais si cadre logique Balla Gaye lim la wax dëgg la mbër yi ku si taxaw ak moom nu may daanee ak fan la may daanee ngay njëkk a xalaat loolu boo koy xalaat si mbër kañ nga koy daan. du yomb jëf euh, la Mama Lamine amuñu ay wax mais maa ngi dégg waxam si man lu rafet la. Mm-hmm. waaye musuñoo wax waxtaan wax dëgg ca la. Garga tey damay bàkkoo lu mu am si làmb. Mm-hmm. Garga bi mu jógee réew ma ñëw sama loxo lañ ko teg ma indi ko dóor dóoraat. Mm-hmm. ñu dàq ko kamara. xamu ko woon. ma ñëwaat ni leen bu dee day fay man ma fayal ko hmm. parce que man du fen bu dee day benn magam bu ñaan day fëri moo ma ko joxoon hmm. bu dee dañ koy fayloo ma fayal ko bu dee duñ ko fayloo doomu gox bi la comme ni ma nekkee doomu gox bi hmm. si équipe lay de premier combat mbapat maa ko ko jox yamut ak sax maama Lamine la muy bëre maama Lamine xamu ko barki Serigne Fallou bu respecté wut Garga 2 mbaa mu ñàkk xam Garga 2 mën na koo daan jël boo xamante ni fa Ama Balde yóbbu Malick Niang fa la ko Garga 2 di yóbbu te instant bi dafa tegu Lamsaar dañ ko yaakaar na def très très attention si Garga 2 Garga lu ma koy moytuloo si Mama Lamine léppam si Mama Lamine mat na surtout ko ëpp ko doole dàq ko bëre ëpp ko fit te làmb loolu kasa la te Garga 2 daa am ay caay-caay yoo xamante ni nekkut si Mama Lamine Garga 2 xeexut day bëree te Mama Lamine turbine lay bëreel balaa def dara in faut que bi jaay mu soog a def. te Garga 2 nekkul si loolu. Mama day xeex day song. kon déggoo ma de xeex ak song boobu noonu ma ngay jox pourcentage public bi mm-hmm. mbër booy jox pour pourcentage public bi am nga di pour cent pour ñu daan la. Garga ban combat am nga gis muy ñëw di ker public bi. Mm-hmm. ndam li lay keer na la jàpp ba daan la jóg dem yoonam. te na bàyyi xel ni Garga 2 bi muy daan sental sentel mu ngi si digg ndëndam di lébaje lamsaar Garga 2 doon lu ndaw te gis nga nam ko def mhm, zongale bu réy ba mhm. te sentel boobu noonu kenn ñemewu ko si loxoy weex mhm. mais dafa indi public ni public bi nii laay def booy bi booy bi ne nii nga may def intéressé wu ma daan la moo ma intéressé fëgg la ak armée bu benn baraak fëgg la ban bu mag ah, <laughs> bu feetu bàyyi ko mu toog fële maag moom. <laughs> day ñëw. <laughs> day keer booy du du leen dara. fëgga la baa la ko wax. bi njëkk a sifflé. arène nationale buñ ko sifflé lundi mardi mu wàcc Sénégal. ok fëgga la hmm. du ñu benn quoi. Hmm, mm, soow xale ak mag la. Hmm. te maanaam sidit. dafay am doole si mbër. Mhm. jàpp day am doole si mbër. te Feugeuleu ak double moteur rek war nga xamante ni bu doon njàmbaar ak ngar mi. Mhm. Feugeuleu double du ko daan. Mhm. mais foofu da ngay dem ba mu yàgg da ngay xam ni néew kàttan moom moo feeñ quoi. so man dama bëgg làmb ñu ñu organiser ko quoi. di def catégorie par catégorie. mais sinon bu ñu bàyyiwut lii. am na combat bu fi amoon xale ak mag gis nga booy bi bi mu dóoree mag mi ni mu demee daf ko dóor si tàng-tàng bi day sénkom parce que ñaari puissance yi bokkuñu tineer yi du ñu benn na gars yi organiser waat lam sinon lu ko may di nga gis booy bu ndaw dóor fi magum jëm mu sedd guyu di maa la ko dernière bi mooy diggante Serigne Ndiaye 2 bu Faas ak ki nga xamante ne mooy Sokosim Sokosim san bu baala Gaye yee ay combat la combat la ñaari ndaanaan ñaari ndaanaan ñaari borom doole ñaari borom doole. Hmm. waaye nag ñaari borom doole benn expérience. Sococine moo ko mag expérience Serigne hmm. Ndiaye de na ko jox cër. Hmm. na ko respecté bu baax a baax. bu mu jàpp ni li si mbappat mooy li si arène duñ benn. arène dafa am ay capsules yu si nekk ay faa yu bari yu si nekk. mais combat nag. combat mais combat bii nii moo gën a doon combat bu dee yàlla def na mu taxaw Gris Bordeaux Balla gay a ah, Gris ma ma xamoon de li ma dégg mu wax. bu dee loolu lay appliqué moom combat boobu dina day waar trop parce que waat na nee na deux minutes da koy dóor mu daanu bu ko dóoroon mu daanu day bàyyi bëre. moom yow xam nga ci làmb waxi bër moom waxu waaw làmb moom ku naan la maa la ko gën a xam nee ko bàyyil ba dimanche. waa làmb ku naan la maa la ko gën a xam nee ko bàyyil ba dimanche mais nag Balla Gaye 2 neexut ba neexut mais ba muy bëree ba léegi du du du question que li liñ doon ay gaay na tax de mais ba muy bëre ba léegi. même buy ñàkk lam la wax su ñëwee da koy def mais gis nga mbër yu bari wax loo xamante ni buñ ñëwee sens contraire ba la ñuy def te daanaka li mu wax ñàkk moo gën a néew que li mu wax bañ a am kon nga xamante ni na ko gars yi di moytu si waxam jërëjëf jaa jëf jël jaay jaa bu baax a baax baax maa ngi jaar tamit Cheikh parce que tey jii nii lii nii bu amee grâce à Cheikh la moom moo ko dox quoi wax dëgg fa yàlla maa ngi doon moytu mm. dajaloo bi nii ak contact bi soow démb sax bi ma sawaay waxee loolu laa ko wax quoi ma ni ko nañ xoolaat ba jëmmi jamono soo xëy na mën naa fee yàgg mën naa fee bañ a yàgg mais man daal maa ngi fii pour waaw toute la vie si con si làmb du ma mas a bàyyi làmb man moom duma ma mas a bàyyi làmb soow loo munti am timit làmb moo ma ko may et puis timit gars yi nañ bàyyi di wax maa ngi def defuma dara dama am yéeney def rek bis bu ma defee gars yi dina xam naa def mais lépp lu ma am moom dinaa ko bokk ak jaamu yàlla yi. ko ñu waalo nee na ñu ngi lay jëfal bu baax a baax a baax ci acte bu rafet bi nga xamante ne def nga ko ma lay jaalewaat papa ji mi nga xamante ni euh, génn na àdduna sa ginnaaw ndax ku ne mun na ko jaalewaat sa moroom parce que bàyyi la boo xamante ni euh, ñëpp la boole woon uuf këram daanaka mun naa ne fa la ñëpp daan daje. waaw xam nga paa boobu koy wax tey nag làmb su ma ko su ma si amee dara dëggantaan dëggantaan papa alaaji la kër googu pour tënk mu gàtt fa laa defaroo gàlle boobu noonu ngay gis te paa boobu jamono bi may encouragé si mbër moom mbër la woon te mu ngi am ay doomi mbër mais xaw gisoon na ni mbër laa war a doonam déet waaye gisoon na ni war naa jariñu si làmb ba tax na mbappat yu bari su ma daan dem paa bi laay ñëw mu fasal ma barki sëriñ Fallou bi ñu gëjee wax yàggut moo tax bi ma jàppee pour ñëw ak bi mu wàññeekoo ma xool non ma xam ne yàlla moo yéeme barki sëñ Fallou maa ngi koy ñaanal yee maa ngi koy ñaanal suñ borom xare ko àjjana te seddal suuf si koom kër googu sama kër la dama dem kër googu jóge fa dem ko ñoom Zil Balde sama tànk jàmm yi ma njëkk a dox yàlla bu ma ko gaaw fay loolu laa njëkk a def dama ñëw fanaan xëy suba minuit laa fi yegsi bi ma xëyee ay 7 heures kër googu laa dem jóge foofu jël taxi dem ko ñoom Jules Balde Junior yàlla na ko suñu borom yërëm xare ko àjjana te seddal suuf si koom di ñaanal àdduna bi yëpp di ñaanal sama yaay tamit mu gudd fan ak sama ñoom tante ñoom ñëpp barke Seexul Xadim di jërëjëfalaat ku tedd ki bu baax a baax di jërëjëfalaat ku tedd ki di jërëjëfalaat ku tedd ki bu baax a baax di ñaan suñ borom guddal fanam lool lool lool lool lool yàlla na suñ borom guddal fanam lool lool barke Seexul Xadim jërëjëf jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb jëf jël la woon euh, waxtaan bi gis ngeen euh, yaatu na lool waaye dipp lépp loo lu ngeen ci dégg rek xeetu defar la mu doon loo xamante ni euh, yàqamti woon nañ ko ci moom jël nañ ko États-Unis jël ko Sénégal sant yàlla wax rek wasaare làmb lii yéen la fi nekkal yéen suñu mbokk internet yi lépp lu ngeen bëgg rek dinañ leen ko indil di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf